képp ku dugg ci autoroute bi am na caméra bu lay xool loo def nag lu dul dawal normal jàll xamal ne mënoo rëcc waxtu wi may wax ak yéen <clears throat> maa ngi clôturer tournée ñetti fan gis ngeen fan yi li jot génn loolu nag liggéey bu taratar moo tax ñu yegg si fii tey du woon lu yomb soo leen gisee sama gouvernement mën a def yi programme d'abord dafa taxaw si yàqanal alalu réew mi si bañ di pasar pasare alalu réew mi waaye di ko def ci li nga xam ne njëriñu réew mi la te buñ ko defee ñëpp dañu ko gis am confiance ay partenaires Yo xam ni xam nañu suñu détermination xam nañu suñu volonté xam nañu suñu pasteef ci liggéeyal Sénégal jële ko ci situation réew mu ñàkk doole yóbbu ko ci réew mu mën a demal muy une nation émergente loolu nag liggéey mooy tax ak ndimbalul suñu boroom parce que loxoom dugg na ci mënoon na gën a metti waaye taxawaay boobu ak farlu boobu moo tax bu ñu ne dinañu def yoon ñu mën a génne suñu wàll la cay dem ca saa saasi la ca des ñu def ko bor boo xam ni lu mel ni autorité yi danañ la ko lebal ci diiru fanweeri at yoo xam ne tabax nga ba pare te tàmbali woo remboursé suñu commencé exploitation ci nga koy commencé remboursé loolu gouvernement bu crédible moo mën a lever bor yu mel noonu li ñu def ci ay yoon def ko ci ay autoroute def ko ci ay piste def ko ci ndox mi ak courant bii nga xam ne loroon nañu lool jafe woon lool kon dama ne gàcce ngaalaama gouvernement bi en tout cas man am na satisfaction te jàpp naa ne sénégalais yi am nañu satisfaction loolu moo tax looloo tax ma ni dëgg la nag xam naa li ngeen di laaj président conseil bi wax nako waye da ngeen di def ndànk nag TER bi dama né dana ñëw ba fi waye waxuma né dina ko def ci ñetti at dé wala bala suba ñu taxaw naan moko fi waxon man luma wax rek dana ko jéem def suñu borom nak mom moy sotal waye lolu dafa bok ci vision biñu bëgg pour que xeyna buñu yobbo yóbboo autorail bi ba ci aéroport xeyna fi ak ñetti at ba ñent mën nañu sumbat benen tronçon kon pour le moment am ngeen ni autoroute jël leen seeni autoroute ba ay bd su leen naxé ngeen jël train bi ba ci kanam no damay bëgg rek mu leer bala ñu naan yaa ko fi waxoon ah li ci des. moy mbour dafa nek carrefour xam ngeen li ñu def ci pêche bi muy napp gi ci walu soutien subvention des moteurs li ñu def également ci quai de pêche ak ci lépp loo xam ne dana tax càmm gi wala napp gi dana gën jëm kanam semaine bii

parce que léeg-léeg booy wax coalition wala parti ñu yaakaar ne président de la république warul wax waxu parti loolu njumte la ndax président parti ko indi fi mu nekk ak coalition te loolu mooy assurer la stabilité politique bi ñu permettre ñu mën a def lii bu stabilité politique amuloon ci réew mi mënoo lever lii ci koppar ci bitim réew ak ci biir réew mi parce que kon kenn duko dal way nañu sante yalla bi nga xamanteni and nañu ñun ñëpp and gor and nañu ñun ñëpp jital njëriñul senegal njiital njëriñul askan wi lolu moñu may tay li ñu am ñukoy sante suñu borom kon nak du jara guddal ndax xaar bi yag na tay sante na len leen na len sen engagement ma ngi len di jox rendez-vous ci fan yi di ñëw ci campagne électorale bu ci yàlla àndee jërëjëf